Euh, masawu d'abord parce que ay mbokk lañu ay xarit lañu ay doom lañu ay jarbaat lañu fenn fi moo tax ñu ñëw ndar dem ci gox yi parce que nit ñi sonn nañu coono googu nag kenn dong moo ko mën a lijjanti mooy ñi ci kaw mooy nguur gi bu dee fii ci ndar xëy na autorité municipale yi ñoom ñoo war a saafara jafe-jafe yooyu euh, parce que li ma gis nii man li ma gis ci ndar tey moom laa doon gis ci ndar y'a trente ans en arrière donc bu fekkee ne loolu ba tey ñu ngi koy dund war nañu ñun si suñu bopp xoolaat suñu bopp situation ndar gàcce la pour ñun ñi ñëpp il faut pas ñu jiiñ ko ñi fi nekk rek ah il faut ñu nangu ne ñu nit dañ ci am part de responsabilité parce que kenn ku nekk war na taxaw xool tey koñam li fa nekk amul fenn fooy jaar foo dul gis ndox amul fenn fooy jaar foo dul gis poto poto amul fenn fooy jaar foo gis arbis dama doon wax ndakaaru ma ne ku la mënul assainiral kër góor gi bu la diggee assainiral la kër Massar boo ko gëmee sa problème la xam nga nag dafa am loo xam ne ñun sénégalais ñoo bëgg ku ñuy nax comme dañoo bëgg ku ñuy nax am na ñoo xam ne ñu ngi fi di naxaate rek ki nax daaw nax la ren bu la naxee déwén yow la neex kon li am solo mooy kenn ku nekk ci ñun ñu def suñu introspection ñu xam ne lii am dañ ci am part de responsabilité loolu mooy man li ma gëm li nga xam ne nag gis nañ ko metti na ci xol parce que nit ñi sonn nañu lu ne kët lu ne jonne koy faj ñëw bi dañu ñëw pour jàppale leen ñëw pour bokk ak ñoom jafe-jafe bi moo tax ñu as tuut ci li ñu yor wër démb diggante ndakaaru Kër Massar yëmbal route de Boune Thiaroye euh, et cetera tey ñu xëy ñëw ndar euh, distribuer une vingtaine de motopompes distribuer euh, plus de mille litres de carburant démb tey li ñu distribuer ci ay enveloppe ëpp na cinq millions ak 3500 litres d'eau de javel mu néew nag parce que dompat la rek. waaye ci xeex la bokk jafe-jafe nit ñi loolu lijjantiw ko loolu réglew ko waaye euh, massa dana dalal nit dana dalal xel donc loolu rek mooy li ñu tax a ñëw moo tax ñu wër dëkk bi ànd ci ak colonel kebe ak ñi ma àndal ñëpp ñoom Antis ñoom euh, Maam Jaara ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak man di ay proche collaborateur ñu ñëw fii euh, massawu suñu dëkk parce que Bougane def na feneen boo ko déggee mun naa neex waaye def na fa mu dëkk fa lay gën a safe te yaakaar naa ne ni ñu ko defee fii noonu la ñuy euh, woowee yeneen doomu ndar yëpp ñu ngi def sax waaye nañu dolli parce que jafe-jafe yi kenn mënu ko yenu gis nga président léegi Khalil ñu ngi koy wax li mu def ci koñam moom dong mënu ko am na loo xam ne benn loxo mënu ko donc il faut kenn ku nekk jàpp ci pour que situation bi mën a réglé wu situation wu mun a defaru lii daal mooy li ma amoon lu may wax. pour nous argent contribuable bi dañ leen di fay. voilà donc mu ngi noonu remercier la. waaw remercier la si sa présence fii. bu dara dul dara. bu dara dul dara sa présence daf ñu soulager. maintenant dinañ la waxaale aussi suñuy besoin hmm. on a besoin de motopompe. on a besoin de carburant parce que ñun ñoo koy def suñu bopp. 5000 5000 10 000 10 la ñuy def. bu jeexee ñu duggaat ci kër yi laaj. à un moment donné sax dañuy ruus duggaat ci kër di ko laaj. may ma la benn du ko gérer. nous avons ah, besoin benn politicien du benn politicien bu fi ñëw di ko donc mu ngi noonu. Ah. voilà la situation globale moo nekk noonu. biñ ma ko biñ ma waxee. Hmm. damay ñëw. j'ai vu ton poste j'ai dinaa tontu naa la. tontu nga ma ma tontu. ce que je fais très rarement. rek parce que ñeneen ñooy gérer page mais quand j'ai vu. Hmm. le poste. j'ai été très touché. très bien donc euh, dama lay euh, masaw. merci di masawu ñi nekk fii ñëpp. oui léegi maa ngi wax ak le représentant du délégué de quartier. ah Ibrahima Fall. Euh, Zof. waaw Pros. Pros Pros le quartier c'est le quartier. on lui a donné un groupe un, un, une pompe joxaale ko carburant mais vu les rapport que nous avons. voilà. parce que bi ma demee Bayal dama jox Bayal ñu ne ma rue Makhtar Diallo ma ne leen foofu sama koñ la. kon sa koñ la la ma fay def. leneen. très donc à ce titre allah dinañ la jox léegi benn groupe benn mm-hmm. pompe. waaw euh, bu 60 mètres euh, leen ci def également une enveloppe de cent mille francs. très bien boo ci ci carburant bi. donc de manière très claire. comme vous avez dit c'est pour le comité. pour mu mun leen a soulager. leneen li ci des nag. jàpp leen ne. Hmm. lu ñu fi defit hmm. euh, def la boo xam ne defu rakk la. Hmm. defu mbokk la. defu xarit la. defu dëkkandoo la maanaam ma ànd ak colonel Kébé mi ah. ñu ñëw ah, euh, wër jox ñëpp euh, moom li mu wax yéen ñaar ñi je crois que doy ngeen euh, misaal ci mouvement associatif parce que ñun yéen a ñu encadré yéen ñu tete ba lu ne nekk ñu nekk ko fi ci dëkk mm. kon nag bu lii amee ñu jaar fii mm. muy gàcce pour ñun parce que je dis la pour ñun parce que fii warta mel nii feneen nit warta mel nii waaye nag méjum kanam borom ma koy fajal bopp kenn ku nekk jàppal ne lii da nga ci am part de responsabilité kon dafa laaj introspection pour kenn ku nekk ci ñun ci suñu digg ak ñi ñuy jiite ci suñu digg ak ñi ñuy jëflanteel mais ci suñu digg ak lu bari lu nekk ci suñu kanam kon li ci des kooku wax ju yegg daf moo ko moom loolu la ñuy wax voilà kon la ca des mm. jàpp leen ne mm. euh, seen doom seen xarit seen rakk moo ñëw mm. lu jëm ci jumaa ji wax nañu ko aussi luñ ci mën buñ ñu ko fàttalee nu ci taxawee nu bokk ci ñi nga xam ne danañ ci def seen loxo parce que lu ñu def ci jàkka ji defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko def kon yéen ñi am yéene ba boole ñu ci loolu dañuy dellu di leen sant di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaye ndar bi xam ni moom la ñu boole bokk moo si rawati si moom te li may wax damay damay invité xale yi ñu jël ko comme modèle dans la mesure où dafa di koo xam ni euh, liggéeyal na boppam gëm na boppam taxawu boppam ba tey ji mu nekk euh, un homme d'affaires le plus euh, avec le plus de waaye lépp lu mu mënti am ak lépp lu mu mën def aussi Saint-Louis moo ko ñor te dafa ñëw lii ñuy def nii du affaire politique dafa ñëw pour euh, defal ko euh, population bi pour defaale ko defaaleel ko waa dëkk bi te loolu daf ko def vraiment daf ko yàgg def si social donc looloo tax dañ koy euh, remercier bu baax a baax may kontaan si moom encore une fois man personnellement mm. ndax taxawaay bi mu taxaw fii si Ndar mm. ak bëgg bi mu bëgg Ndar ak lii muy def lii parce que wax ngeen ko am na foo xam ni bi politiciens yi yëgeen dañuy ñëw rek dañ fa jiitu démb ñëw di commencé gaawantu jox ay moto moom parce que xam nañ ni xëy na moom su ñëwee dana def te coow du jib parce que moom nee na voilà ma nga alors que moom lii lii ñu def moom am du affaire politique donc daal di ko di ko di ko encouragé rek euh, di wax ndaw itam na ngeen euh, fagaru taxaw di ko jël comme exemple pour mën a euh, avancer parce que ça vous inspire c'est un Saint-Louisien comme nous donc nous devons tous être fiers de lui en tout cas Bougane on est fiers et puis euh, je crois que la population de Saint-Louis kontaan nañu si action yi ngay def ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax te ñu ngi nekk aussi a fii ma waxal kañ lañ ko merci ma ngi nii moom këram a ngi ne ma ngi nii en fait. waaw gëm sa bopp ñu ngi fii ba tey ci Pikine ginnaaw nekk quartier beneen quartier bu nekk ci Ndar euh, ñuy gis ndox mi nu mu def dëkkuwaay yi ñuy gis nit ñi euh, askan wi fii yeewoo jafe-jafe yi ñuy dund ak ndox mi ndox mi nag mu ngi nii nangu na ay kër am na ñu ñu déplacé am na ñoo xam ne dañu génn ñu hébergé nañ si yeneen kër ah, image yaa ngi noonu gis nga kër yaa ngi noonu président Bougane Gueye mi ngi taxaw ci buntu kër gi di gis waaw situation baa ngi parce que suñu maxee fii day wàcc mais su wàccee dix minutes day yéegaat ndax mi day bal bon am na beneen kër gi topp bi mu taxoon aussi séparé maire moom sax dafa ma faf mere parce que dafay defee nii damay mag kër ba bàyyi ma nga nee taxaw mi ngi nii moom ñii ñii dañuy bokk am na ñu fi jaar te defuñu ko situation baa ngi noonu génn na ci kër googu ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem ci beneen kër beneen kër boo xamante ne tamit euh, ampleur inondation yi kenn mënu ko wax ak moo kese il faut que ñu leen image yi ngeen gis ko ngeen gis nan la ndox mi def nan la ndox mi def dëkkuwaay yi. Hmm. mi ngi nii tey may ma àggale mi ngi nii chaque année dañ koy dugalal machine ren ji aw ma raakool bu ko ma jot ba tax ma mën fi dugal machine mi ngi nii dafa ma mere sax loolu dafa ma ci non da mere sekkere da nga may mere sekkere parce que xam naa ni nga ma daan nuyoo ak ni nga ma kee dafa ñëw ni mu waxee ak man toma boobu te mënu ma ci dara mi ngi nii yéen nag yéen non da nga may may ma rek yéen a ma war a dimbali pour ma dimbali leen a ma a dimbali leen kon na ngeen ma dimbali ma dimbali leen ñu ngi su ma amee raakol 400 mètres dana ma arrangé ma xam ne dama koy jëlee fi yóbbu ko direct ba waaw ah. il faut ma fii laay jëlee dem ba dig ba raakol yi day bët day du kii bogaan daali la waaw ma ndox maa ngi nii kii machine dong moo ko mën génnee machine laa fiy def tous les chaque année ma ngi nii bu dul dëgg da nga naan du dëgg parce que man du ma politique bu dul dëgg rek neel maire du dëgg bu ma neexal bu ma neexal bu leen neexal lu si amul rek da nga naan amul c'est man noonu lay dundee ni may dundee ak yéen lay dundee ñii ñii suba dañuy dem maag ñoo fiy des li ma leen di wax moom laa leen di wax du ma leen neexal ñoom du ma leen neexal yow pour nga xam loolu man si dëgg laay wéy mi ngi nii chaque année raccord laa fiy dugal ren c'est dommage aw ma raccord bu ko jot dafa ma mere mere seekare mi ngi nii bon on y waa kay dégg nañ euh, témoignage yooyu témoignage yi nga xamante ne euh, kii di délégué de quartier bi def na ko euh, def na ko ci kii ak expression besoin yu mu wax euh, pour mun a rek jëlee euh, ndox bi nga xamante ni moom rek moo mun a <coughs> moo mun a euh, soulager waa kër gi waaye it waa koñ bi yëpp ndax ndox mi def na fi ay dégâts yu xaw a doy waar def na fi dégâts yu doy waar.